J'ai beaucoup apprécié le rappel su la grande sagesse de Serigne Abdou Lahad Mbacké day leen laaj nu mu ko waxee ci wolof lu mën a nekk boo leen laajee lu mën a ne ñun ñu def lu mënul lu ñu àttan ñu nangu li ñu àttan su ko defee jàmm na ñooy waaye bu fekkee laaj laaj laaj loo xam ne kenn mënu ko def loolu du sotti ñun xam ngeen ne def nañ lu ëpp li ñu àttan te loolu dama siy ñëwaat léegi ndax waxtaan de toll foo xam ne day baax ñu taxaw tuuti def rappel historique Sénégal depuis indépendance 1960 ba 2012 bi muy yàlla di indi ci bopp réew mi augmentation yi ñoo fi am 82 la ñu tàmbali ak 85 82 pour un montant de 3000. cinq cent quinze francs ay trois mille quatre mille bu bëree bu bëree ay cinq mille six mille mille neuf cent quatre-vingt-neuf ñu yokk si yokk def augmentation de trois mille francs quatre-vingt-neuf quatre-vingt-quatorze la beneen augmentation bi doog a am pour un montant de quinze mille cinq cents francs c'était important quinze mille cinq cents en en janvier deux mille ñu yokk salaire pour six mille deux cent quatre-vingt-quatorze francs janvier deux mille en deux mille deux ñu def beneen augmentation de dix mille francs et en octobre deux mille cinq ñu yokk ci dix mille francs lii mooy évolution globalement salaire ni mu deme su amoon ngeen wax léegi nag deux mille douze ak léegi du du ma wax deux mille douze ak léegi parce que fii la ñuy fanaan mais deux mille vingt deux bii ak tey. daaw ak ren laay wax du ma wax di jàll fukki at yi jàll ci retraite yeeg li ñu def yëpp revalorisation des salaires dans le secteur rien que de l'éducation la revalorisation de la prime scolaire au profit des instituteurs et instituteurs adjoints c'est passé de vingt cinq mille à quatre vingt mille le relèvement de l'indemnité d'enseignement de cinquante pour cent à soixante pour cent indemnité d'enseignement L'augmentation de l'indemnité de contrôle et d'encadrement a été augmentée de 100%. L'augmentation de l'indemnité de recherche documentaire et de charges horaires perçues par les professeurs d'enseignement secondaire et les PM e et PCMG portée à 114%. La revalorisation de l'indemnité liée à la fonction dirigeante. La défiscalisation de l'indemnité de logement qui est passé à cent mille francs net en plus de ces revendications du régime indemnitaire gouvernement bi décidé ne comme dund gi cher na ndax guerre baa ngi fii covid bi mbas mi jeexagul ñu ne nañu yokk point indiciaire salaire de cinq point mu jàll de cinquante et un virgule quarante trois à cinquante virgule 43 loolu dafa ñëw fekk ci revalorisation dans le secteur de la santé et de l'action sociale avec des allocations de l'indemnité de logement benn syndicaliste nag mooy wax léegi principal président fexeel ba ñëpp am ci man ko déet loolu nag lu ñuy xool la ñëpp am indemnité de logement moom kooku beneen affaire la mais yokk nañu ko pour mu jàll pour les agents de l'État du cadre de la santé publique et de l'action sociale ainsi que ñi nekk ci travail social yokkal na ñeen indemnité mensuelle de logement non imposable de cent mille francs li may wax yëpp daaw la ak ren mille francs à compter du premier mai deux mille vingt deux soixante quinze mille à compter de du premier janvier deux mille vingt trois cent mille francs à compter du vingt quatre bii di ñëw donc sans compter alocation indemnité de spécialisation médicale pour les techniciens supérieurs de la santé revalorisation de l'indemnité de risque santé waaw bu mbas mi ñëwee moom ay risque de infection am nag yooyu l'indemnité de risque octroyée aux agents de l'État du secteur public de la santé yokk na de cinquante pour cent donc de 50 000 à 75 000 ça c'est depuis le 1er mai 2022 la revalorisation de l'indemnité de fonction qui est une indemnité mensuelle attribuée aux agents occupant l'une une des fonctions de responsabilité l'indemnité d'itinérance est revalorisée à hauteur de 100% elle passe de 15 000 à 30 000 à compter du 1er mai 2022 la revalorisation de l'indemnité de représentation médicale pour les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes de deux cent 000 à trois cent vingt 325 mille francs waaw kon xam ngeen ne te te lii te lii pare gu ma liste bi effort boobu bu ko gouvernement defee naam bu ñu toogee nee ngeen def nañu mais da ngeen ko war a gën a wax parce que c'est des efforts énormes des sacrifices énormes que l'État a consenti pour permettre aux travailleurs d'avoir une meilleure réaction par rapport au coût la vie. Vous voyez, la création de représentation paramédicale le personnel paramédical. Pour la hiérarchie A, 35 000, 25 pour la hiérarchie les autres catégories. les chauffeurs am na ku ko doon wax nee na sama chauffeur les chauffeurs pour la prime de motivation payée aux chauffeurs en récompense de leur bonne conduite vont avoir une hausse de Donc ça va passer de 5 000 à 10 000 par mois, donc de 60 000 à 120 000 par an à compter. D'ailleurs, c'est fait. depuis le 1er mai 2022. Donc ça, c'est une question qui est réglée. La revalorisation pour les autres agents publics que ñëpp yemuñ ci njàngale rek ak santé les autres agents de l'État ñoom it am nañu depuis juillet deux mille vingt deux bi ñu génn une indemnité spéciale complémentaire noonu lañ ko dëxëñee ah léeg na ñu ne logement noonu dañ leen boole benn indemnité pour yokk ko ñu tuddee ko indemnité spéciale complémentaire dont les montants varient de quatre-vingt mille à trois cent mille par agent. selon le catégories waaw loolu nag sëñ bi bu amee dëgg yàlla war man foogoon naa dinaa toog ñetti at kenn du fi indi cahier de doléance ah oui moo jaadu loolu moo jaadu parce que en réalité li ngeen war a xam mooy te xam ngeen ko sax liggéeykat yi dafa am solo ci réew parce que ñoo yor production waaye liggéeykat yi yëpp bu ñu leen boolee en tout cas ci secteur public bi suñu boolee ñëpp matul asaka askan bi huit cent soixante et quelques mille cent soixante dix mille agent sur une population de dix huit million donc ça fait c'est loin de de faire un pour cent léegi nag béykat yi ñi nga xam ne amuñ solde sàmmkat yi chômeurs yi ci ci gox yi ak gox war leen toppatoo ñi nekk ci secteur privé waa Sonacos ñu ngi wax te Sonacos dinaa si ñëw dëgg la vous êtes combien de travailleurs peut-être mille deux mille na ngeen nañu changer décret bi mais bu ko changé ñaata millions de béykat la ñu la ñu la ñu handicapé mais béykat itam dañu am ay droits il sont des millions ñoom ñuy dundee gerte yi donc lépp loo gis rek. dafa war am équilibre cest à état bi ci équilibre lay dox naam ñu jàppale ñuy liggéey waaye nag ñi nga xam ne ñoom tey jii gis nañ ne kilo gerte mu ngi jóge soixante quinze francs bi may ñëw toll tey ci plus de trois cent quatre cent francs kilo kilogramme ñooñu ñama nga dem na leen léegi président day tëj marché bi pour que usines yi am gerte loolu ma def na ko demal yéen ngeen wax leen ko ñoom béykat yi en tout cas man na ma dem di leen ko wax waaw ah, yéen nag boo leen ñamee ngeen dem yéen ak Fada <laughs> donc c'est pour dire que c'est normal ñu protéger travailleurs Sonacos c'est normal te état bi mu ngi jàppale bu baax Sonacos bu baax état bi bu taxawuloon këru liggéeyukaay yu bëri tëj nañ bu yàgg déjà wax naa ko Cheikh Diop bi ma le passif social passif social ma ne ko Cheikh su ma la toppee ak passif bii man duma fi liggéey dara parce que dégâts yi gars yi def yëpp avant. j'ai passé tout mon magistère à à compenser mais nag yàlla defal nañu sutura ñu am une économie robuste qui nous a permis de faire ce qu'on fait tout sol soldant ce passif social mais war nañu indi nag ñu réfléchir sur les conséquences de la mauvaise gouvernance des entreprises parce que ça coûte très cher à l'État